sàmmoonteeg ak sharixata al mutahara te boole ca la ngeen mën ci al xaqiqatu al munawwara daal di firi shariha ak xaqiqa ci anam gu jàppandee jàppandi gu leer a leer gu yomba yomba topp rek mooy shariha lépp lu lislaam rëdd rek bu dee luñ digle nga def bu dee lu ñu tere nga bàyyi loolu mooy shariha alxaqiqa nee na mooy rek lépp looy jàpp ak lépp looy bàyyi na yàlla rek tax kon dëgg-dëgg yi ndigal li rek mooy taalibe bi fu mu toll lépp lu muy jàpp ka bàyyi na dëppoonteeg rëddu shariha ba noppi nag lépp lépp yàllay kese kese tax loolu bu ko defee rek mu ngi ci ndigal li ma nga ca yoon wa da caa teg sax ne na ngeen moytoo nag jéggi shariha ak xaqiqa di jàll ci yeneen yoo xam ne yàllaa ko jagleel ñeneen xeeti jagle yooyu nga xam ne du faral daj ñëpp ay benn benn lañ koy jagleel mu ne na mu ne na ngeen moytoo weesu jëfe ndigal bàyyi tere te yàlla tax bu leen ko weesu mukk bëgg jàll ci leneen lu bokkut ak loolu mu daaneele ne am na luy ñëw ci kanam nag lu leen di wan ne li ma leen wax lu mata yeewu la te di ca yeete mooy rekk bañ a weesu jëfe ndigal bàyyi tere te yàlla yi kese kese tax sëriñ bi nag ci boppam am na lu mu bàyyil boppam lu wax ne moom ci lay tërbiya ci lay tarqiya ñëpp ñëpp di ci teg seen bët muy mbindam daa wax ni la mu daan dénkaane di ko tomb di ko leeral ci làmmiñu wolof itam yàlla def na ci ndimbal bi nga xamee ne sëriñ alxaaj mbàkke gëstu na ba dajale ci ay dog yoo xam ne yu takku la yu mat a sant yàlla nga xam ne kon ku yàlla may nga dégg làmmiñu arab mën ngaa boole la mu bind ci arab ak liñ jot a génne ci dog te mu daa ko waxtaane ci làmmiñu wolof bu dee nag koo xam ne mënut làmmiñu arab bi mën naa fonk bu baax a baax dog yooyu nga xam ne moom lañu boole noonu mu di ay waxtaanam ak ndénkaaneem ci làmmiñu wolof ba tey mën na cee boole waale xasida yi nga xam ne sëriñ bay jaxate moo ko def ci wolof ndax daanaka lu bari ci li ñu indi ci téere yi tasawuf yi di ci jàngale ak taalube sëriñ bay jaxate andi na ko ci biir taalifam yooyu wax ko ci làmmiñ wolof wu leer naññ naññ woo xam ne wu yéeme yéeme la li mu bind ci arab moom dafa mel ne xasiida jaalibatul buróor lu ca ràññikoo ràññiku la ndax moom ci boppam bi nga koy def dafa fekk mu àgg ca àgguwaay ba te feeñ na ca waxin wa nam waxe ci njëlbeen ga te it am na saraa boo xam ne moo ko ci defal boppam muy saraa bu yaatu waaye nag li ëpp ci yax yi nga xam ne moom lañ mool moom amuñu saraa boobu ne téere bii kat dama ko taalif ngir bëgg cee tarbiya bëgg cee tarqiya bëgg cee tasfiya mboolem ñi nga xam ne ñoo aju ci man moom la wax ne nadamahal xabdul xadiimu ahmadu li wajhi man huwa al ilaahu samadu nadamaha tarbiyatan wa tarqiya liman taallaqu bihi lit tasfiya loolu kon mooy genn wàll gi nga xam ne day leeral lépp lu aju ci wàllu shariha ak xaqiqa te bokk ci mbindi sëriñ bi bind mbaaboog ku mel ne sëñ bay jaxate way ko di ca leeral waxi sëriñ bi ak waxi yeneen gaa yu baax yi wàll gi ci des nag mooy li mu taalif tem aju ci déyaaleeg boroomam ak sant ko ak ñaan ko ci tudd turam yu màgg ya màgg ak tagg yonante bi ak tudd ay turam ak julli ci moom muy lu yaatoo yaatu lu bare bari te ëmb ci barke loo xam ne yàlla ni ko dogal rek moo xam nu mu toll yaar yi ku ko boole li sëñ bi wax mbaa mu bind ko nga di ko nemmiku di ko jéem a jëfe kem sa kàttan doole ci bari la jàng xasaayita bi ci des ku boole yaar yooyu daal bu ko yàlla mayee tawfiq rek dana am ngën ji tarbiya ngën ji tarqiya ngën ji tasfiya ndax sëñ bi ci boppam moo wax ne kitaabati faaqat shuyuuxa tarbiya wa kulla xayrin wa shuyuuxa tarqiya ردت كتابتي بإذن الله لخير نحوي كل جان الله توصل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة والله أبقى كما أغناه بتاي كبير جالبة المراغب مغنا وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهدئ مريدا يطلب الإنارة فإن كسلت ندم تايلغا عن أمور الورد ولس بالورد فلا ترم كون بول ساكو إنكارها أك ود سين للحقد غير أك تخر ولا غير أك بن أك نونو فإن عجزت ندم لوتغا عن ورود المورد ولس روتي جا روتي كايبا fala taxuq bul gàllankoor anhu walis dem rooti ax yoo sama bokk min ahadin kenn ne bu fekkee dangaa tàyyal ci mbiri wirdu bul jekki di ko weddeeka sikkalal ab jaambur yow daal bu fekkee tàyyal nga ci bàyyil ka nga xame ne moom moo ca sawar moom mu def boo tëlee ci dem ca fañ ñi roote rooti fa duy bay duyal keneen daal loolu bu fekkee ne tëli nga ci mënoo ko bul tee kenn dem bàyyil ñi nga xam ne ñoom am nañu man te sawar ñoom ñu dem waaye demoo nag bàyyiwoo keneen dem moom tooñ gu ëpp la waalam xamal bi ànd na kataratal ujjóori ci naka barik yool ya bi qadri bi qadril awraadi nekk na ci kem wirdiya maal xuduuri ànd ak teewlu ga wirdi yi dañoo bari waaye nag ëppante nañu ay daraja ak tuyaaba yuñ ca mën a amee kenn ku ne nag sa tuyaaba mi ngi takku ci jëmmi wirdi wa nga amee fu darajaam tollu ak yow ci sa bopp yow mi nga xam ne yaa koy jëfandikoo na nga ko fonke ak na nga ca amee ak teewlu nee nañu la léegi wirdu sëriñ bi dafa ëmb mboolem wirdu yi ci des ni nga xam ne moom la alquran ëmbee téer yi ci des nga xam ne kon wirdu sëriñ bi moo féete kaw mboolem wirdu yi ku ko yore te fonk ko teewlu ko sàmm ko da nga am tuyaaba joo xam ne ku defut la nga def rekk du ko am kon bala noo génn dog bi nga xam ne ci lay waxee mbiri wird nu fàttalee ne wird bi nga xam ne ab dog la bopp yaa koy tobbil sa bopp muy aw sas nga di ko taqoo moom yaay jekki-jekki rek sàkkal ko sa bopp boo nekkee ak sa sëriñ nag mën nga ko caa laaj ndigal ndax mu jox la ci ndigal waaye boo nekkut ak moom mën ngaa jekki-jekki rek toog bi sas woowu di ko def sàmmonteeg moom te jàpp ne sa sëriñ ànd na ca ak yow wirdu jaamur moom deesul jekki-jekki jël ko da ngay laaj ba am ca ndigal ku taalif ab téere def ca ay njëriñ bëgg ñépp jot ca ba tax mu mool ko tasaare ko njariñ yooyu ku ne sañ naa jekki-jekki jariñu ca du aajoo nga di ca sàkku ndigal ba tey li sëñ bi waxoon ne laa tafaxalu shay'an bi xayri idni fal idnu shartun fi qabuli sha'ni sëñ bi ne woon bu leen def dara dara te amu leen ci ndigal ndax kat am ndigal mooy tax ñu nangul la am na taalibe bu laajan sëriñ bi ne ko ndax ab taalibe sañ naa jekki-jekki def ci xeeti jaamu yàlla yi dara te amu ci ndigalul sëriñam sëriñ bi ne ko ndig ndigal lu ñëw ci alquran wala ci addis day du jara mu di ca laaj ndigal ba tey wirdu sëriñ bi bi sëriñ bi ne dañ koy def suba ngoon daa am taalibe bu ko laaj ne ko waaw luñ jublu ci suba gi ak ngoon gi mel daa bëgg xam suba gi fu mu tàmbalee fu mu yem ak ngoon gi fu mu tàmbalee fu mu yem sëñ bi leeral ko suba gi ak ngoon gi lu ci ne fa mu dale ak fa mu yem ba noppi nag xamal ko ne ko lu ci nekk kat am na muxtaar ak daroor yi ne ko suba mi ngi tàmbalee ci bu fajar xaree yem ci bu jant bi nekkee ci digg asamaan muxtaar ma nag maanaam suba gi waxtu wañ ca taamu nga def ko ca mi ngi tàmbalee ci fa fajar xare dem nag ba yoor yoor la tàmbalee yoor yoor nag bu jant mi nekk digg asamaan mooy daroor yi wa ngoon gi mu ne ko mi ngi tàmbalee ci buy sëlmalee takkusaan dem ba fajar di waaj a xar nga xam ne kon la dalee takkusaan daanaka ba ñi bëgg a noddu salaatu rek loolu lépp ci waxtu wird wi la waaye loolu itam dafa am muxtaar am daroor yi mu ne ko muxtaaram mi ngi tàmbalee ci takkusaan yem ci gee la dale takkusaan ba gee boo fi defee wirdu wi def nga ko ca muxtaar ma la dalee gee nag ba fajar di waaj a xar mooy daroor yowam laajoon nañ ko it julli ànd ak wirdu wi te mooy guddi gu ne nga julli fukki rakk ak ñaar tëje ko wetar te bu dee ku mokkal alxuraan mu def ko rakk bu ne roba kooku laaj ne ko waaw bu julli yooyu rawee nag mu ne ko bu fekkee la ko tax a raw day day lu diis a diis neexutoona booleeg moom def kon du aajowoo fay waaye bu fekk bu fekkee la taxan nag julli yaraw ko nekkutoon lu diis kon dana ko war a fay xanaa mu lott ca fay ga mënu koo fay bu fekkee day ñàkk gaa fay ak tëlee tax moom ñu bindal ko tuyaaba ja laajoon nañ ko itam kuy def wirdu wi am ku koy laaj dara ndax dana ko saña tontu wala déet mel ne ñaari waajuram wala keneen sëñ bi ne ko wird ak mboolem xeeti sikkar yi nga xam ne yu yitteel la ñooyam ci googu wàll amul teqale itam ci kay wax ak moom di waajuram mbaa muy keneen moom daal day seet rek bu fekkee ne ñàkk a tontu kooka wax ak moom dana andi ab yàqu-yàqu kon na wax ak moom te tàmbaliwaat wirdu wa su fekkee ne nag ñàkk wax ak moom du andi benn yàqu-yàqu kon na wéy rekk ci wirdu wa ba àggal door a wax ak moom ñu laaj ko it ndax mënees naa def wird wi ci lu dul muy amee am njàpp mu ne bu fekkee amul ngànt day daa war a amee am njàpp su amee ngànt nag dara nekku ca du am bàkkaar ci ñàkk gaa ameem njàpp ñu laaj ko ndax mëneef na koo defee ci béréb boo xam ne laabut mu ne bu fekkee du ngànt day kon du ko sañ su ngànt taxee nag kon mu defee ko ci béréb bu laabut du wàññi dara ñu laaj ko it ndax mënees na koo def ci lu dul toog jublu xibla mu ne bu amee ngànt day dagan na bu amul ngànt nag bu ko defee daldi ñaawal teggiin te ñaawal teggiin nag yal na nu ci yàlla musal nga xam ne kon booy def wird yi te amoo ngànt da ngay toog jublu xibla soo amee ngànt nag ni ki am na yitte yoo xam mënoo koo ñàkk dox yi mbaa yu demee noonu nga farlu ci def ko rek mu bañ laa raw yooyu jamono bañ gaa toog jublu xibla xanaa du ci wàññi dara incha allah faslun li ab dog la fi zikri ci tudd yàlla tudd yàlla da ko boole woon ci yi nga xam ne mën nga koy fecclee sa waxtu yu féex ndax rek nga bari tuyaaba tudd yàlla bu ñu ko waxee moom day yaatu lool alquran da ci dugg waaye da koy beral moom ab dog wird mee ñu weesu léegi moom it dugg na ci biir tudd yàlla waaye gis nga moom itam dog bii ngay door a génn moom la ko jagleel kon nag tudd yàlla gi nga xam ne moom lay wax fii moom mooy la dale ci laa ilaha illallah jëm suuf nag ni ki subhanallah alhamdulillah allahu akbar laa xawla wala quwata ak istighfar sàkku njëgal ak julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yooyu yëpp lay boole ci bunt bi amma dawaamu dikri daal saxoo tudd yàlla fa huwa moom akbaru moo gën a màgg min kulli ma ci lépp loo xam ne kaana nekk na almuridu taalibe ba yukktiru di ko baril xad xultu wax naa daalika loolee bila israarin ci ludul ak nëbbu wala ubaali te duma faale bi dawil inkaari ci waroom weddi ga wa kullu man képp koo xam ne rekk sa alan yi laaj na ma fal yi ñeel na ma jawaabun tontu te mooy qabla wala tujaadiloo ahlal kitaab la nekk ci njëkk wala tujaadiloo ahlal kitaab ne ab taalibe bi moom saxoo tudd yàlla moo gën ci moom leneen lu ne ne bu ma nee nag ab taalibe lu mu mën di baril daal tudd yàlla ca gën ne loolu su ma ko waxee dama koy wax ca kaw li kaw te faaliwu ma ku koy jéem a weddee ka diingat mu ne ku ma laaj nag ne ma waaw lu tax nga wax ne ab taalibe bi daal saxoo tudd yàlla saa yu ne moo gën ci moom lu tax nga wax ko ne ma ne la boo jàngee alxuraan bala ngaa jàng wala tujaadiloo la ko jiitu mooy sama tontu mooy ba yàlla ne wala dikrullahi akbar tudd yàlla moo gën a màgg lu bokkut ak moom loolu nag weddi wut lañ waxan ne julli moo gën a màgg ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi gannaaw gëm yàlla ndaxte julli dafa ambaale tudd yàlla ba noppi ambaale nag leneen loo xam ne nekkul ci tudd yàlla kese dañuy bañ nga jàpp ne kon booy tudd yàlla rek ñu noddu di woote julli ga la nga nekk ci tudd yàlla moo gën julli ga déedéet julli ga tudd yàlla la ba noppi nag ëmbaale ca leneen loo xam ne amul ci tudd yàlla kese wax mu ci wax naa ne man taraka ku bàyyi dikrillaahi tudd yàlla li dikri xayrihi jëm ci tudd ku dul moom mbaa lu dul moom fa humrun kon ab dof la laahin buy aji fo nee na ku sàggan ba bañ a tudd yàlla xanaa di tudd keneen mbaa leneen mbaa muy wax leneen lu amul tuyaa ba daal kooku rek dof fa kayfa yan saa naka lay fàttee aw yuxaafilu walay sàggane alwara mbindeef yi dikkëral lës yi tudd buur bi nga xam ne xalaqahum bind na leen wa sawarate mu melal leen nee na mbindeef yi bu ñu yew woon yàlla mi nga xam ne moo leen sàkk dañ ko fàtte benn yoon fu ñu toll dañu koy fàttaliku di ko tudd te bañ koo fàtte bañ koo gannaawal wa innahu naka moom bidaayatul wilaayati mooy tàmbalikaayu wilaaya wa tarkuhu ak bàyyee moom tudd yàlla it nihaayatul xawaayati mooy yemukaayu réer mooy yemukaayu mbewte jaxalanaa yàlla na nu def allahu yàlla min alladina nu bokk ci ña nga xam ne daamoo sax nañu alayhi ci tudd yàlla bi fikratin ànd xalaat alxiina diiru jamono tudd yàlla moom nee na dafa rëy rëy ba mën nga ne ci la wilaaya tàmbalee koo gis mu saxoo ko rek xamal ne wilaaya jomb ko mën naa dem ba soppiku waliyu waaye nag bàyyi tudd yàlla di ko fàttee ka sàggane moom mooy yemukaayu mbewte mooy yemukaayu réer mu ñaan nag yàlla boole nu ca ña nga xam ne dañuy sax di ko tudd di ko xalaat wal xulfu wuute ga fil israari ca yalu ga wal ijhaari ak biral ga jaarin aji daw la baynal mashaayix yi ci diggante sëriñ sa alkiraami ña di way tedd nee na nag booy tudd yàlla ndax wax ko ci kaw moo gën am wax ko ci suuf moo gën sëriñ su baax si am nañ ca wuute wa faddaloo gënal nañu asira yalu li bu'din ngir ak sori min riyaa ci ngisal wa jamay fikratin ak boole xalaat bii ca tudd yàlla ga innu yendeem yéeneef na ko ñi wax ne tudd yàlla te wax ko ci suuf moo gën mooy mën naa am soo ko waxee ci kaw nga ngistal ca bëgg ca ku la tagg mbaa nga waxi waxin woo xam ne yëkkati gaa tax ak ña koy dégg ne kon doo waxee noona teyit ñoom dañu ne booy wax ci suuf ngay gën a mën a teewlu li ngay tudd ci saw làmmiñ sa xol di ko dékku ak sam xel kon ñi wax ne ñoom wax ko ci suuf moo gën loolu lañu wax wa baaduhum lenn ci ñoom faddala gënal na an yujhara bu dee fi biral bi ci moom li yasma ngir na ko dégg alxayru keneen wa yaqtadiya te muy roy bi ci moom fa yaxsula tey am al ajraani yaari yool ya xaysu maqtada fu mu fi royee xayrul keneen bi ci moom lamma badaa ba mu feeñee bi jëxrihi ca biralam nga wa yaxusa ak ngir na jàpp al kullu képp minal xawaas yi ci mooy yëg yi maanaam mooy cër yi rek xistan ab cër la wëññeel ko min zikri rabbin naas yi ci tudd buurub nit ñi ñi wax ne nag boo tudd yàlla wax ko ci kaw moo gën ñoom dañu ne boo tuddee yàlla wax ko ci kaw keneen dégg ko daal di tudd yàlla su boobaa nga am ñaari tuyaaba ndax sa tudd yàlla bopp ak it kookee nga xam ne yaa ko fàttali ba mu tudd yàlla nga am ñaari yool te it booy wax ci kaw day mel ne sa cër yëpp yëpp ku ne am na wàll ci tudd yàlla gi te nag booy wax ci suuf day mel ne daanaka làmmiñu dong dong moo cay yëngutu ñoom kon loolu tax ñu wax ne tudd yàlla wax ko ca kaw moo gën waaye nag ñu bañ a fàtte ne kat di tudd yàlla di ko wax ca kaw li kaw wala boo dee naafil ñu ne ci guddi sopp nañ ca wax ca kaw loolu lépp day fekk amut ku nekk sa wet koo xam ne na nga yëkkatee dana ko lor wala kuy nelaw mbaa ku wéré di koo xam ne boo yëkkatee ci kaw rek mu amee ci lor loolu moom bu xasee am moom day araam du yëkkate ci kaw ndax li ngay def luy sopp la bëgg a dolli ku tuyaaba te lor mbokkum julit lu araam la kon nag bu fekkee ne bu dee jàngal quraan wala bu dee sikkar yëkkati gam ko yëkkati dana ca lor keneen ci doomi aadama yi moo xam day ku nekkoon ci julli mbaa sikkar loolu di ko jaxase wala muy ku tawat mënta dékku kàddu yooyu muy dégg wala muy nelaw loolu di ko yàqal lu lépp bu xasee am rek ka doon tudd yàlla ba ka doon jàngal xuraan doonte ci julli la day bàyyi wax nga ci kaw tey wax ci suuf ndax biral gi nga xam ne moom lay sàkku ci moom ci yoon itam doonte su fekkee ay noppam dina ko dégg ku sës ci moom rek di ko dégg rek loola dal nay doy ca biral ga nu far leeral foofu ne mboolem xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne dañ koy wax ci aw làmmiñ bala ñu ko sañ yëkkati ci kaw li kaw day fekk ne doo ca lor benn mbokku jullit dem na sax ba weeru koor wi danañu taamu nodd yi ci boppam ñu yëkkati ko ba mu xumb xumb waaye bu naafila rekk desee dañoo bëgg ñu wàññi rajo ba nga xamee ne ña fa nekk di julli te yittewoo dégg rekk alxuraan ja ci ñoom lay yam waaye du jàllaale ci keneen koo xam ne ma nga beru woon ca bérébam mbaa ma nga nekkaat feneen di jaamu yàlla te buñ yëkkatee ca kaw li kaw loola jaxasem xelam yàqal ko dara ca la muy def wal baadu lenn ci way xam ñi maala jeng na li tawsiiti jëm ci ak diggale fii ci moom mu fassilan mbir muy aji teqale baynahuma seen diggante fa qaala te mu wax lii in kaana ndem nekk na xaayifan di aji ragal min riyaay ci ngistal fa xaquhu aqam al israaru moo di yalu ga bil ixfaay ànd ak nëbb ga id ngir sawnu fi'lihi ñoŋal jëfam ja anil butlaañi wal si yàqu yàkkuwunu dana nekk fil ixfaayi ca nëbb ga wal kitmaani ak nëbb ga ama ida na a ndaal ndeem sori na xani riyaa i walis ngistal ngir kuwati tamkiini ngir kàttanug dëgëral ga war safaay ak sell ga fa xàquhoo aqam al jëhru moo di biral ga bilaa xafaayin ci lu du nëbbu li nay li faidatil iqtidaa yi ngir am njariñal roy ga ba ñenn ñi waxee ne tudd yàlla moom wax ko ci suuf moo gën daldi dogu ca loola ñenn ña ne déedéet tudd yàlla wax ko ca kaw kay moo gën daldi dogu foofa daa am ñenn ñoo xam ne jekki wuñ jekki wax ne wax ca kaw moo gën jekki wuñ jekki ne wax ci suuf moo gën ñoom dañoo indi ak teqale ñu ne bu dee koo xam ne daal moom pas-pasam dëgër na ci digganteem ak boroomam ba gisatul lu may yàlla nga xam ne bu yëkkatee kàddoom di tudd yàlla itam nga xam ne bu yëkkatee kàddoom di tudd yàlla itam luy nuroog ngistal luy tee la muy def sell dara du ko ca jege ndax moom yàlla rek rek la daj yàlla rek rek la gis te it bu yëkkatee tudd yàlla ga amul kenn kum cay lor kooku moom nee nañu yëkkati ca kaw moo gën ci moom ndax su waxee ca kaw keneen dégg ko fàttaliku daldi tudd yàlla moom it mu daldi boole yaari tuyaaba tuyaaba yi boppam ak kookee nga xam ne moo ko fàttali ba mu tudd yàlla bu dee nag koo xam ne moom amul ak dëgër ak sellal gu wóor digganteem ak boromam nga xam ne bu yëkkatee ci kaw li kaw rek xëy na mu bëgg ca aw tagg mbaa muy waxee waxin woo xam ne ña koy dégg tax waaye boromam dong du waxe noonu xam ne kon bu yëkkatee moom sellal jafe ko kooku na wax ca suuf moo gën ci moom ndax kuy jëf ku ne war ngaa jéem la nga xamee ne mooy tax sa jëf du yàqu te moom nag wax ca suuf bañ koo yëkkati mooy te jëfam yàqu xam ne gis nga ne kon kee dañu ne wax ca kaw moo gën ci moom kee ñu ne wax ca suuf moo gën ci moom waaye jékki bu jékki rek ne wax ca suuf moo gën mbaa wax ca kaw moo gën waxoo moom nag ixtiyaar